waxtaan nak nag lu ko waral mooy euh, dañu gis suñu président Diomaye euh di woté né pour euh, appel. Naby Vision. moo ñu bari ñu may euh ci sujet bobu noonu tay nak man si sama xam-xam bu gatt boobu ak sama analyse bu gatt lay waxee je pense que ni président Diomaye bu waxé né euh, da fay def appel à témoin du dégg naa moo tax muy wax gis naa moo tax muy wax parce que tey OFNAC am nay rapport mais sauf que fi ñu nëbb koppar bi OFNAC xamu ko nit ki sàcc la OFNAC xam li nak man damay ñeu di waxtaan ak yeen fi ñu nëbb koppar bi ak ñam ñoo ñu mëna dimbalé pour que ñu récupérer koppar bi Sénégal dafa am nu mu bindoo. Naby Vision. moy tay Sénégal bo bëggé enquête da ngay commencer ci mbindaan bi mhm. mbindaan yi dañuy xam ndax dañuy gis te topp lañ leen di fay dañ leen di fay salaire wu mbindaan nu Afrique duñ la déclarer amoo fiche de à amoo dara mais da ngay gis mais tu n'as pas le choix pourquoi parce que tu es obligé de faire ce petit mot. te bu ma leen di wax ci Colombo rek xam ngeen ne maam mun na nekk Colombo

ñu Californie de parce que Californie moo maam ñoo yem dégg naa la wax instant bi gis naa la ñuy wax ñi nga xam te ne ñu fekkee fa ñuy nëbbee xaalis bi ñi nga xam te ne xam nañu fi ñuy nëbbee xaalis may wax mbindaan di wax chauffeur koppar bi seen koppar la kon da ngeen war a yombalal état bi képp ku gisoon patron wam mu doon liggéey ci ministre gis ministre ba fa mu doon denc milliards yi da di xool da ngeen di jéem a rapproché président Diomaye wala ngeen def ay lettres anonymes ne président Diomaye boo demee ci lieu bii koppar baa nga fa boo demee ci lieu bii koppar baa nga fa boo demee ci lieu bi koppar baa nga fa ndax koppar boobu bu ñu ko récupéré day gën a neexal suñu dundal. Naby Vision. tey Sénégal mu ngi am bor ay milliards milliards milliards yoo xamante ne tey dafa mel ni président Diomaye dafa jóge ci vie boo xam te ne amuloon bor. Macky Sall daf ko fi waccal bor di ma ne maam ban bor lañu Macky Sall waccal Macky waccal nañu fi TER bi Macky waccal na fi tali bi Macky waccal nañu fi ay avion Macky Sall angaaru bor lañu fi waccal angaaru bor ba yooyu noonu naka lañ ko nar a fayee ñun en tant que sénégalais dañ ko war dañ koy fay ci suñuy impôt dañ koy fay ci suñuy tax

demoon na sacc xaalisam parce que chauffeur bi dafa gis fa Farba Ngom don rënk xaalis ba mu banqué mu dem récupérer ce qui lui appartient moo tax ma ne bo boo leen xam afi ma lay nuyu bu baax bo leen bëggee xam fan la suñu koppar nekk wo leen chauffeur wo woo leen mindaan yi leen chauffeur de taxi wo woo leen chauffeur ministre yi Naby Vision ñooñu ñoo ñuy wan fan la koppar bi nekk woo leen ndunguru ministre yi parce que am na ndunguru yoo xam te ne sont tellement cons da nga leen di jox ay milliards ne leen demal nga dugal ma ko ca pax ba ma fay la ci cent mille francs wala deux cent mille mu ne ah kon man bu ma la jëlalee xaalis fii rek Dakaaru yóbbul la ko ca pax ba léeg-léeg suul ko am naa ci deux cent mille parce que ñun suñu góor yi partisan du moindre effort ndayam bu ko yónni woon danaan du ma dem baayam bu ko yónni woon dama naan du ma dem bu amoon rendez-vous sax ak gelam bi da koy ne ma dem yóbbu xaalis bi ca paxu ministre ba ba pare doogay ñëw biisu biisu léegi nag ñooñu noonu ñu ngi leen di woo solennellement ci li président Diomaye woote ne képp koo xam te ne xam na fi sàcc yi rënk seen xaalis parce que wax day leer bu ñu nee dem leen ngeen boole sàcc bi. président joomaay xam na ñan ñooy sàcc yi mais fa ñuy rënk xaalis bi fa ñu rënk koppar foofu la ñu wax ngeen wan leen ñu ko. képp ku liggéeyaloon ministre te mu xam fa ministre ba doon rënk koppar bi woo leen président Diomaye ne ko suñu koppara ni ci pax bi acte citoyen la ñu dem récupérer suñu koppar di ngeen yéen waa APR yéen xamoo leen koppar yéen vous êtes les seuls militants yoo xam ne faux billet lañ leen di doxaane ñoom dañuy jël xaalis bu baax bi rënk ko def ko ci pax bi

parce que commerçant prix achat wu moom xam par rapport au prix d'achat, achat lay def chiffre d'affaires affaire ci lay am bénéfice tey mon président Diomaye mu ne day négocier ak mais man je trouve déjà que commerçants au Sénégal ils ne marchent pas assez moo tax mënuñu fay seen charge sociale. Nabi Vision. si bu ñu wàññiwaatee prix bi nga xamante ne moom la ñuy nous avons besoin charge sociale qui nous aide. Donc, il donc dafa classe sociale nous xamante accompagner pour que nous, puissions nous cee nous puissions nous a experts am expert comptable état bi war leen accompagner ba ñu des vrais artisans ou commerçants Nous devons faire ñu ba parce que c'est celui qui gagne de l'argent qui achète affaire bi engrenage la li ngay wàññi ci jaaykatu soble lolu du ko dépenser on est liés nous tous Nous avons bokk bonne direction Nous avons ñoo bokk objectif mais objectif pour nous atteindre ça nécessite des euh, sacrifices. ça nécessite un autre citoyen un autre comportement maîtrise de la société pour que nous nous tirions vers le haut waruñu di écraser l'autre pour monter qu'est-ce que j'appelle écraser l'autre pour monter c'est-à-dire le commerçant qui achète pour 10 francs et qui revend pour 20 euh, francs Mon calculer charge mieux mieux, calculer léppam Mais moi, pour moi, un bénéfice il faut que je gagne 20 francs Les commerçant boobu boo ñëwee nga ce ko cest bénéfice Le bénéfice ba mu am permettre mu lekk loolu mooy yow bu lekkati ma may lekk c'est injuste je trouve il faut trouver le juste et le juste milieu fait que tey le Sénégal soxla mooy ñi nga xamante ne à ñaxtu pourquoi pas ne pas augmenter leur salaire. Naby Vision. parce que bu ñu augmenter seen salaire. ñoom dootuñu ñaxtooti ci jënd lekk bu cher problème bi ñu am ñun Sénégal ça fait des années dund bi di qui ci yeneen dëkk yi mais yeneen dëkk yi saa yi bu dund bi yokkoo dañuy yokk salaire fi chaque année dañu yok SMIC bi duñu né wañu len prébus bi Dédé, buñu yoké prébus prix bi parce que aduna day dox on est en dans une période de crise ñom luñuy def moy yok salaire ñun mosuñu yok salaire ñun dañuy yok dund moo tax dund bi nit il est temps qu'on revoie les salaires par rapport au coût de la vie. Nabi Vision. maintenant di ma ne waa ni nous salaire' pas c'est une autre question parce que si vous êtes salarié bu vous lu salarié, ventre creux ne tient pas debout bu Vous correctement il faut que nous adoptions adopter commerce actuellement avec l'évolution du monde la crise actuellement qu'on vit, essayez de changer notre mode de vie, notre comportement alimentaire. Essayez de s'adapter, de se soigner avec des produits qu'on a nous, non pas d'aller le chercher ailleurs. Nabi Vision. Sénégalais, day bëgg aduna adopté ci adopté ci Aduna. il faut qu'on apprenne à s'adapter. Je tax ma def ay live pour vous dire il faut qu'on apprenne à se soigner avec les produits locaux c'est-à-dire bu prix Doliprane yokkoo mu wër la ne Doliprane boobu tubaab le ko defar maam indi na une solution ne leen kew solution, seen vous buy métti boo leen ko vous pat def ko solution, front da ngeen di wër mais rabattez-vous sur le kew au moins là-bas vous créez des emplois et l'argent reste dans le pays Nabi Vision. te on boo leen chiffre d'affaires am kooku day dem embaucher nous ñun tant que changé notre comportement actuellement on ne va pas avancer il faut que nous adoptions par rapport à la crise mondiale La crise mondiale bi yàlla dafa Nous n'est que plus devant on est devant sauf que psychologiquement. On vit comme des aliénés parce qu'on est dépendant. On est trop dépendant du blanc. tey de Fufi ñu président bu bees tàkk bu ñu ci paquet. Vision. indil ñu fi président premier ministre bu nous avons bu ñu